waaw Fatou waaw mais démb barki démb ak démb li fi am lépp ñun fii la ñu fekk lépp man fi la ma fekk ba tey it lépp tam fi la ma fekk mais affaire bi depuis ba tabaski bi jotee ba léegi ñoom ci lañ ko commencé doon def depuis tabaski ba léegi ci la ñu commencé doon dégër piise mais commencement bi ba ñu commencé ñëw dañ doon ànd ak boole kaak yar ak teggin ñu bu ñu ñëwee ñu bàyyi leen ñu ñëw ñu pousse leen ñu ñu ñuy jël seen bagage ñu jël seen bagage dindi leen bagage yi ñu dindi mais xam nga affaire sénégalais day dem ba mu yàgg day am ñoo xam ne dañ ciy rax lu ci bokkul léegi dañoo dem ba mu jéegi dafa mel ni dañ ko jàppee ni comme ñoom buñ nee jóge leen fi jël bagage yi dafa mel ni ñun genre ñun dañ leen a ragal léegi nag ñu commencé ci dugg affaire violence commencé nag léegi indi ci ay saaga ay agressé yu kenn xamul te xam nga itam góor tam boo koy booy jàpp ay bagage am xam nga bagage alal la dafa neex ci xol nga koy jàpp neexul mais boo demee ba ci biir commencé ci dugal ay violence ay saaga rek su boobaa day fippu te nag looloo indi lii ndax ñoom buñ ñu doon def ñu ko doon def ndax man am na man Médina bi laa juddoo man booy temps ci dakaar laa dëkk ndax ñi ñi ñi ñi jàpp bagage yi ñi ci bari samay xarit la ñu xam naa leen ndax xamante ne ñu ñun ñoo bokk fi dëkk man man man man man jógewuma ci àll ba jëluma horaire man fii laa juddoo fii laa yaroo kon nag man mënuma xeexak waa dakaar mais mënumaa doon marchand ambulant ba pare di xeex ak marchand ambulant man tew kon man kaam bi may taxaw mooy atte rek waaw man dama doon taxaw di atte rek mais dafa dem ba mu yàgg nag booy atte te ñoom bu ñuy song xamuñu koy atte ku dul atte ñëpp la ñuy boole dóor kon nag su boobaa dangay waajal sa bopp rek. bu mel ni que waxoon nañ leen ko waxati leen ko euh, na loo xam nga nit booy wax da ngay wax dëgg te yàlla tax nit booy wax rek da ngay wax dëgg tali buñ ko defaree te defaruñ ko pour teg teg jaay te defaruñ ko pour teg jaay mais loo gis dafa am ndey. te li jur lii mooy ñi fi jiitu woon waxuma nag état bi soog a ñëw ñi fi jiitu woon bu ñu liggéeyoon ba nga xam ne ku ci nekk fa nga dëkk man man nga fa tekki mais day ñëw Ndakaaru di di di di di lal ci tali bi nañ waxante dëgg tey bu ñu utaloon jeunes yi liggéey mais du du du du ñu nekk di lal ci tali bi mais ñi fi nekkoon ñoo liggéeyul bu ñu liggéeyul nag tey ba affaire déshonoré nii tey ba demee nii mais tey ña ña fa jiitu woon la ñi fi nekk gum nag mënagul leen wax dara. ndax ñun yaakaar leen moo tax ñu fal leen mais tam bu demee nii tey nañu xam ne ñoom démb ba ñu soxlaa réew mi tey ñun ñoo doon taxaw doo doo doo leen jàppale mais dégg naa Sonko am na lu mu wax nee na jàppale ñu itam taxul li ñu war a def ñu def ko mais ñun bañu ñuy def loolu mais tam nañ ko boole yërmande boole ci dal te xam ne lu mënagul nekk mënagul nekk mais tam nit koo xam ne tey ci la doon liggéey loo jàppale la yow ba nga falu mais yow tam mais da ngay def nànk ngeen ñu naxante ñu seet naka lañ koy organiser ba tëj tali li mu wax dëgg la mais tëjuñu tali bi ñun ñun fii ñu nekk nii oto yee ngi dem oto ñëpp ñëpp a ngi dem mais affaire dafa dem ba mu yàgg jalousie da cee dugg ndax waa da kii waa waa nekk bi ñoom dañoo dem ba dañoo jalousie bu ñu jógee naan marchand ambulant ñoo fatt suñu buntu kër yi mais ñoom seen seen davanteeru kër yi ñoom ñoo ko def ay marché ñoom ñoo ko toj luyee ko def ko ay magasin kon ba pare ñoom seen biir kër yi ñoom ñooy togg ñoom ñooy togg ko jaay marchand ambulant yi ñoom ñooy jaay kere yi ñoom ñooy jaay ndox yi ba pare ngeen di yuuxu. est-ce que kon jotul tey ngeen organiser wu vu que ne dangeen ngeen di daan seen doole te itam daan doole taxul nga ñëw lal si trottoir bi nga xamante ne askan bi fa la ñuy jaar tamit. gis nga grand man fii ci organiser laa dëkk man côté bi man maay responsabilité côté bii fii fii man ci organiser laa dëkk chaque jour damay organiser damay organiser booy yi mais xam nga affaire booy yi itam affaire mbooloo booy wax ñii ñii ñii dañ lay déggal ñii duñ la déggal. gis nga mais ah, loolu itam da cee am am na ci boo yoo xam ne boo leen organiser bu affaire yi jaxasoo loo leen wax nañ ko dégg mais boo demee ba ne ba organiser affaire yi mais ñii dañ lay déggal ñii duñ la moom am na ci man damay wax dëgg doo du ma fen damay wax dëgg te yàlla am na ci boo yoo xam ne moom dañoo dëgër bopp waaw mais lal moom ci tali moom du dëgg du yoon mais amee façon bi ñu ko bëgg a defee nii ak fi situation bi toll nii ak fi réew mi toll nii liggéey ñàkk boo nee nii booyee ku jaaxle daw songu géej gi ku daw ku jaaxle daw songu géej gi te ñun ñooy jeunesse bi ba pare nag ñu bëgg a ñu bëgg a doxalee nii mais man li li lii du solution. sous préfet bi ñëw na fi démb yan kàddu la teg seen loxo. non sous préfet bi man barki démb moom gis naa ko fi mais démb ba mu ñëwee ba xeex bi jaxasooyee man dégg naa wax fi mais man gisuma ko moom waaw barki démb daal wax na barki démb ba mu fi ñëwee dafa ne ñu jël cinq euh, éléments yoo xam ni ay kii kilifa lañu ñu ñëw fale waxtaan ak ñoom ñu ba ñu jëlee suñuy cinq ñooñu dem pour waxtaan ak ñoom ñu ñu toog fi continuer di liggéey Alioune di def discours am ba Alioune Ndoye pare def discours am ci la ñu ñoom songo te ñoom ba ñuy songo ba dañoo ñëw pour xeex ñëwuñu woon pour jëlee fi benn marchand ambulant ndax barki démb xeex bi ñu fi xeex ñu duma leen affaire yooyu wër ci rajo sociaux yeeg wër ci télé yeeg média yeeg yëpp yi gis ko ni leen marchand ambulant yi duma te dumaawuñ ko benn maire loolu moo la naqari démb démb vengeance moo leen indi woon est-ce que itam xeex bi solution la bi gën a yéen itam fu ngeen nekk du yoon buñ waxee dëgg itam te yàlla tax waaw xam nga yow man wax wax naa la ko ci njalbeen gi nee naa la lal ci tali du yoon kon donc xeex bi li ko waral ko bi li ko waral mooy ñoom déggoo li ma wax ñoom dañoo dem ba dindi bi dañ ci boole violence violence bi moo ko jur ndax nit naan ni ngay dindee ngay dindi ni ngay dindee ngay dindi dañ dem ba dañ ñi dañoo tàppet léegi dañ ciy daw dañuy ñëw dañuy yàq sa bagage wala bu ñu bu ñu jëlee sa bagage yenn bagage yi doo ko jot looloo ko indi ba am na ci ñoo xam ne nag ay ay nit la ñu ci ñoom ñoom bu ñëwee dañuy wax ak yow waxu nit xam nga mais am na ci ñoo xam ne dañ dañ ciy dañ ciy boole affaire ay bandi bandi wala affaire gir yi affaire man booy temps la affaire nangam sàngam waaw duñu leen may naa xam nga duñu leen may naara comprendre nga ñoom dañuy jéem a jaay affaire ak góor la quoi nañ ko nañ ko def affaire u gaynde te xam nga ko xam nga ku indi bagage am di liggéey xam nga kooku affaire u gaynde tax ku ko jóg léegi nan ngeen di sàkku yéen non ñun li ñuy sàkk mooy man man jàmm rek jàmm rek ndax jàmm ci la lépp a xaj day fi ne nii tey réew mi toll woon na jamono yoo xam ni dañ doon xëy si fi mënuñoo liggéey ay lakkaramajan ay xeex guddeeg bëccëg lakkaramajan yi tàkk kenn du am jàmm kon xam nga ne jàmm ci la lépp xaj kon lépp nañ ko teg ci cadre jàmm ñu waxtaan ñu dindi affaire u fit teggi ko teg ko fële dindi affaire u doole teggi ko teg ko fële gis nga ki jox doole na la xeexeel ki lay jox xel na la liggéeyal wala ki lay jox xel na la utal jàmm moo ko gën voilà te booy booy booy town yi ñun ñëpp ñun ñoo bokk town bi ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi dëkk bi ñun jeunes yi ñun ñoo ko mën a defar waaw ñun ñoo ko mën a defar tey man man damay toog fii si tali bi man damay toog si tali bi mais tali bi ambulance dafa war a jàll tey bu xatee tey ambulance malade bu ci nekk mais maar day taali tey mën na nekk sama mbokk mën na nekk mbokk keneen ah tey tey tey fi mu ne nii lii yëpp xam nañ ni du yoon mais tam situation la tey lii gën a nulu tey man su ma amoon lu ma gënal tey nii ngay def nii ma def ko ñoo ñoo ma ma liggéey liggéey bi mais xëy sama destin ya ya yàlla deful loolu ah wala ma dem liggéey beneen liggéey mais yàlla moo dogalee noonu on ko ñu dawal yërmande Euh, maa ngi tudd Modou Sène ñu gën maa xam si Modou Mbacke. Modou Mbacke waaw. dem seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di municipal bi ku nekk Dakar Plateau. situation bi xawoon na doy waar lool. est-ce que mën nga ñu si ñëwalaat. non euh, exactement nag wax dëgg yàlla xeex bi moom si quota bi yaa ko seetaan rek waaye man commerçant bi laa ndax maam 2002 ba léegi man maa ngi jaay bi sànd gi. waaw waaye nag problème bi moom fekkuma ko ndax maanaam ñun ñoo municipal yëpp. police ñiy liggéey fii ak ñun ñëpp benn lañu ndax maanaam ñun ñoo fi dëkk xam nga nit buy liggéey bërëb bi tam ñamul ñamu nekkat ñu doon booy yi nga xam ne ñooy municipal yi ñun ñëpp ñoo bokk fii nekk fii waaye nag am na loo xay ni moom fokk ñu comprendre te ndax maanaam liggéey moom rek moo ñu fi indi ndax maanaam li liggéey fii si la ñuy faj suñuy soxla presque koo fi gis muy gàddu bagage lu mu doon benn seret mbaa mbaa benn pantalon responsabilité la ndax responsabilité boo xay ni maanaam day day fay courant di jën ndox di fay ndox di jël ceeb di jën lépp loo xam ne maam ay waajuram yëpp si moom la ñu gàcce. mais gars yi ñu ngi def ay jéego pour euh, résolution am démb wax nañu sax sous-préfet na euh, a am ba euh, situation yi changé. waaw loolu koy bëgg nañu ko ndax ñun ñëpp ay citoyen ndax maam citoyen Sénégal lañu ñun lu ñuy participer si réew mi dañuy participer si réew mi développement réew mi ndax maam conteneur ba fu wàcc. commerçant bi laa mu ndaw ndaw boo gis muy mu tuuti tuuti day participation si liy développé réew mi ndax maanaam ñun kenn gënuñoo bëgg réew mi te ay ay électeurs lañu lu xew si réew mi dañuy voté ay citoyen la yoo xam ne maam citoyen yoo xam ne réew mi doon bokk bi laay doon a considéré waxtaan ak ñoom bu ñu waxtaan ak bopp après affaire bi am suivi waaye lu bëri bëri du am suivi doon naan waaw Aliou moom yëkkati na ay kàddu nee bi notifié wu ko euh, këyit buy wane ne euh, dana arrêté du ko def kon jàppoo leen ne xeex bi fi mu toll nii euh, da mel ni moom tey la koy doog a door ndax nee na tant que notifié wuñ ko rek du du bàyyi mbir waaw ndax état moom maire rek ñoo mën a ndax maam état lu maire lu muy def état moo moo ko jiite ndax maanaam maire état moo ko moo ko yëlif kon nag moom lu si mën a ne état responsabilité am na ko ci kon nag maam yéen ñu ñuy wax di ko réeral rek di réeral gars yi ndax maanaam ñu bëri dañuy demande bu si biir problème bu amee problème da am si biir ndax maanaam nit état moo jiite moo moo maire maire balaa moo falu préfet moo koy samp kon nag maam lu si mën a moo si jéem wax wut si ay responsabilité am jeunes ay jeunes te noo bëgg a liggéey bëgg ñoo dem feneen lépp lu xëy maam saa bu problème amee en en ñu bëri bëri am na ñoo xam ne maam ñu aw amuñu lu def si réew mi am amul ben entreprise boo xam ne mu ngi fi jël employé te am na ñoo xam ne boo demee fii ñu bëree bëri doon ay commerçant bilan ñu ngi yor seen seen i licence yor seen yoo xam maam si njàng mi xam ne fu nu noo sore sore jàng-jàng ba sori amoo foo aw sa njaboot say waajur nekk ak yow maanaam amoo foo aw kon en maam da dem nga def def commerçant boo demee def commerçant bilan état bi mu war a jéem a seet ay sites yoo xam ne bien faa casé gars yi mbaa def marché yoo xam ne marché ay dimanche ak yooyu mu jeex fee dugal ñun ñi da ngeen di wax du ngeen fa dem ndax su ngeen fa àggee euh, peut-être clients yi duñ leen fa fekk non am na site yoo xam ne boo fa dugalee commerçant bi la te mu doole koo xam ne ma ñaari seulement la doole mbaa du seenu caleçon la boo ko dugalee site day lekk xaalisam foofu kon nag bu daanoo itam maanaam fu mu demaat lu si tali nit bu demee béréb te doxu tam yàgg-yàgg si tali du ko nag fa commerçant yoo xam ne du ko demoon commencé développé te ba léegi ba leen génnee ba léegi kenn defu ko fa dara kon nag am na site yoo xam ne mën ngeen fa bàyyi en attendant noonu nga bàyyi leen fa ñu nekk fa waaye boo leen jëlee nii puus leen sësal leen bu demee ba jaaxle itam problème lay am rek mbaa bu ñu amuñ fu ñaaw ñeneen si de duñ dugg si gaal yeeg mbaa jël yoonu suuf yi te loolu say zone lañu zone yooyu maanaam ñoo ñoo exploité ëllëg si li ñuy mel di jaay doole euh, li nga xamante ne moom moo daan doole ñu dàq loolu noonu ñëw si affaire citoyenneté est-ce que yow en tant que citoyen jàpp nga ne tey euh, lal fi nga xamante ne moom moo di droit public bi nekk na loo xamante ne jaadu na waaw lal lal si tali moom ñëpp a xam ne jaaduwul waaye ñi koy def ñoo la gën a xam ne li ñuy def normal waaye amuñ fu ñu aw nit bu amul foofu nag mën a def loo xam ne maam euh, jaaduwut ndax maanaam lal si tali moo gën dem di def leneen lal si tali lu mu bon bon moo gën di def leneen ndax nga leen organiser ngeen jéem a arrière ñeen ñi nga jéem leen organiser bu am fu ngay lijjanti feneen ndax état am na doole dugal fu ne fu ne ñi am doole am na ñoo xam ne mën na am bëgg nañu place waaye bu ñu ko am ndax place yi ñu koy joxee dafa seer place boo xam ne dix millions laaj ñoo xam cinq millions laaj ñoo xam maam weer wu ne cent cinquante mille ngay fay commerçant bi la amul ko ku la ko wax itam wax seeg yow itam ba d'accord seeg yow itam du mën a nekk ndax nit da ngay wax li mën a nekk euh, euh, waaw mettons a fa lal léegi nag situation bi day gën a métti rek waaw dina ko organiser rek ndax maam loo gis tam waxtaan la ñii lal si tali bi gënalu leen buñ seen duñ lal si tali bi waaye boo organisé itam wala leen comité mu nga attaqué te maanaam ma doon président ak citoyen bi lal si mbed mi ñëpp di ko lal si mbed mi muy désormais ma xam ne maanaam mbed mi xat na tali bi xat na li ñuy liggéey itam si dañuy faj seen soxla ndax moo gën ñuy def leneen ko yóbbu ko police si commerçant bi ko si muy jël alal jàmbur loolu nag mooy gor te maanaam jàpp ni tam mu taxawal ko tribunal ne ko da ngaa jël alal jàmbur kooku ay mbokkam dana koy bàyyi waaye jàpp ni maam mu teg di liggéey itam moom ko ba mu dem 100 mètres ndax bëri na ñoo xam ne man en l'époque maanaam 2000 2000 2002 2003 samay gars yoo xam ne maam ñoo xam ne boo calculé war naa ay 20 personnes ay 10 personnes ñëpp jaar nañu 100 mètres man maa ngi central jaayaat ndax ñooñu xam nga ne maanaam moo leen gën jàppale si ambulant moo gën nga jàppale si leneen fii koo fi gis commerçant ambulant day faj soxla di def lépp day liggéey nag président kii dégg naa ko nag mu wax préfet dégg naa ko mu wax mu ne maanaam da ngeen di liggéey maanaam nangam nangam du liggéey waaye aussi tam nga organisé am na loo xam ne nga def tolérance boo tolérance amul du baax waaw ok merci beaucoup. ñu lay fay marché ambulant rond-point Sandaga au président marché ambulant ñu nekk fii ci plateau bi fas yéene fee nekk nag ci loo xam ni luy defar réew mi la luy jàppale réew mi jàppale réew mi rek mooy seet lépp loo xam ne sell na am na njariñ ci réew mi nga fas yéene ci nekk lu nekk ay marché ambulant nekk ci benn chantier boo xam ne mi ngi ci rond-point gi di marché Sandaga gi ñu koy liggéey liggéey bi nag ñu ngi ko door yàgg na mais itam nu nekk ci barab boo xam ne dañ fay yàgg lool am compétence bi nga xam ne yàgg nañ fi defe naa nit 81 foo ko nekk ba léegi war nga mën a am compétence foofu ci li fi nekk it mooy am nañ sérieux problème boo xam ne yàggut ñaari fan ñett ci la mu diggante marché ambulant ak maire yi bi amee problème bi ameewul fii ci côté bi sax bi amee fële ci pont bi mais xam nga nag ñax gu wow day lakk la kaale tooy <coughs> ba problème yi ñëw ñu am jàppante yu xaw a métti ci ñoom seen diggante ba problème bi am ni comme police ak ñëpp taxaw taxaw di xaar li ñu xaarit mooy état bi ak maire bi ak ñi xam ne ñooy marchand ñu toog waxtaan sérieusement ndax li am waru woon a am ndax barab boo xam ne nekk fa sax 60 euh, ans lay nga war ko kon am na yoo xam ne bu amee ca barab rek war nga xool lu ko tax mu am ko li itam mooy marchand ambulant ak ñi xam ne ñooy maire bi. problème moo jaar seen diggante problème bu ndaw a ndaw ndaw boo xam ne vraiment euh, jaaduwul comme ne ay xëccoo yu ndaw moo amal seen diggante te problème boobu yàlla def na euh, ñu ngi koy réglé nun nan toog déglu autorités yi ak kilifa yi nga xam ñoo nekk ci réew mi ñu ngi koy jàmbat bu ñu ko jàmbatee ba pare kenn ko ne delluwaat sa la nga nekk loolu ci la nekk maire bi itam ki daal di ndoy <coughs> suñu waxee tam yàgg nañ ak moom mos ñu am problème ak moom mos ñu it ak moom lenn lu dul jàmm ak salaam lii itam amee kenn ku ne da ngay waxee sa xel ak sa xalaat na xam ni àdduna moo bindoo noonu àdduna ne ak naqar moo fi am boo neexee tey bu léegi mën naa naqari kon problème bi ñu am nii dañu ñaanu woon ko yàlla yaakaaru woon ay jàppante na am suñu diggante ak ñoom kon dañ delluwaat suñu xel xam ne ci ñun ñëpp ci réew mi lan nekk xam ne réew mi rek ko nu ñor xam ne réew mi rek ko nu amal njëriñ mun ñu fi nekk bu bëgguñu woon nekk ci trottoir bi di xaar ak di xuloo ak di jàppante suñu sañoon kenn ko da ngay nekk sa barab bu baax toog di liggéey di jaamu yàlla comme nag yàlla nattoo noonu lii nan muñ te xam ni àdduna nii rek la suñu borom jàppee. waaw léegi bëggoon ko xam démb dafa mel ni na leen si waxtaan bu fekkee yaa ngi fa woon nga tënkal ñu rek. la fa jotoon Djibi Diallo toog na noo moom demb defe naa ne trois heures de temps ou quatre heures de temps. di waxtaan ak moom waxtaan bi mooy nuy seetee régler situation xalaat ba xam nan lañu war a mën a toog di waxtaan seet mbir mi lii war a am lii fi am bu mu amati ci lépp loo xam ne war naa am ci diggante bi nañ toog wax ci xalaat. waxtaan ci ba problème mel ni bañ a amati ci en ville de Dakar vraiment jaaduwul ci ñun jaaduwul ci ñoom ñi nga xam ne ñu ngi nuy dégg dina xalaat ñoom itam li ñuy wax mooy ñun ànd doon benn yëkkatandoo tegandoo det loo xam ne rafet na ci der dëkk bi ñu koy def en barrage yi nga xam ne moom nekk nañ ci mooy werte traitoire yi ñi nga xam ne day li nga xam ne mooy ñuy dox seen i tànk ak li nga xam ne day li nga xam ne mooy oto yi ñu bàyyi ko seet ñu régler situation boobu ba mu jàll ak jàmm loolu rek lañ bëgg incha allah ay waxtaan euh, su ko defee situation yi mën a changé léegi ñoom su ngeen amoon kàddu yi nga xam ne war ngeen ko jox euh, pour euh, solution mën a am daar-daar lan lay doon. li muy doon mooy ñun ñëpp ci réew mi leen dëkk actuellement monsieur le président Diomaye ak ki nga xam ne mooy Ousmane ñu ngi leen di lancer appel xamal leen ni rek réew mi. am na jaxasoo yu daw waaye jaxasoo yu yomb rek la ndax diggante bi lépp ci réew mi la kon lu nekk ci biir réew mi warees na koo mën a régler en situation bu gaaw boo xam ne du am benn problème boo xam ne dina gaañ kenn loolu rek moo fi problème incha allah waaw incha allah ok merci jërëjëf jërëjëf incha allah waaw maa ngi tudd Abdoulaye Ndiaye di délégué Roqu Disquette quoi waaw ak Calaris waa fii def naa fi ay dix ans. ay dix ans waaw bu mel xanaa li fi xew dem moom si dix ans yi gulet euh, la de voilà. non li fi xew du gulet. lii du xew du fi bulet lii xew na fi xewati fi jamonoy Abdoulaye Wade plus pur amoon na fi jamonoy Macky Sall plus amoon na fi régime bi tamit début bi tamit lii am na fi gis nga ko parce que régime bu ñëw wala ku ñëw maire bu ñëw da ngay jéem a wane sa bopp def déguerpissement quoi mais lii du fi gulet de. du fi gulet ngeen ak maire bi di Alioune Ndoye xëy na lii li mosu fee am seen diggante boobu. waa maire Alioune moom franchement yàgg na noonu moom mais lii moom mosu am. waaw ñun su fee am parce que solution ñu ngi koy wut ñun ñëpp xëy na li fi amoon xëy na erreur la si ñun ñaari camp yëpp ko mais maire Alioune Ndoye mi ngi def ay jéego ñun tamit ñu ngi def ay jéego waaw mais mosuñu am benn problème jàmm leen seq ak moom ak liggéey boo xamante ni tàmbali leen ko dañuy ñaan yàlla mu egg daal. Oh. ku ñëw foofu xam ne situation yi fa nekk nekk na loo xam ne lu anormal la parce que parfois nit day ñëw euh, mooy passant yi pour ñu jàll foofu sax problème parce que da ngeen occupé euh, kaw tali bi ba tellement euh, problème mu riverain yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fay jaay difficulté yi ñuy am ak oto yi nga xam ne dañuy jàll foofu tamit ñu bëgg leen recaser yéen ay marchands ambulants mais tout le temps da ngeen ni bañ. te eh, nit ñi sax dem nañ ba wax ne da ngeen di victimiser wu chaque jour ndax lan bëgg leen a jugee fi nga xamante ni nii moom jàpp nañ ni sénégalais yëpp d' accord nañ ni que di foofu du yoonu kaay aussi. waa d' accord li nga wax am na mais amatul parce que depuis déguerpissement bi ñu defoon si Covid bi Ruqu Disca dafa am espace espace boo boo xam mën na un hectare. boo xam naa da ngaa gëj ruqu disket wala nga gëj fa visite mais boo fa demee di nga gis ni ruqu disket amatul kenn ku lal si kaw tal boo demee tey ruqu disket amul kenn ku lal ñëpp ñi ngi si espace boobu toog espace vide la boo xamante ni ñun ñëpp fa leen rangé wu defar ba mu rafet toog jaay pour le moment comme ñi ngi si ay site yoo xamante ni ñi ngi si conçu comme Petersen comme Sandaga instant bi nga en chantier moo tax ñu dem yéeg si site boobu toog di xaar provisoirement di xaar site yooyu pare ñu dem ñu recaser. léegi su ma déggee yéen da bëgg affaire yi am tolérance ñu bàyyi leen ngeen di continuer di wéyal seen ay activité ba keroog site yi di pare pour ngeen mën a dem foofu. waaw mais loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg parce que borom kër ñu ñëpp ay borom kër lan ay responsable la. mais borom kër mënul xëy bàyyiwul këram dara yoru paas bu mu ñibbee yorum lu mu añee nga ne ko doo fi lale waaw waaw dëkk bi dañ ko war a defar gis nga marchand ambulant ñun d' abord man man man laay wax marchand ambulant du problème dëkk boo dem si àdduna bi am na marchand ambulant am na marchand tablier mais instant bi vingt et unième siècle nekk war na noo defal telle sorte que suñu toogaay bu mu dëppoog jamono ba mën ñu mën a toog liggéey suñu liggéey tranquillement duñ déranger kenn kenn duñu déranger marchand ambulant du problème gis nga milieu fii nga gis yi mënoon fee def ay genre tànt ak ay genre tànt yu rafet yoo xam ne dëppoo jamono ay bloc de dix wala bloc de cinq ku nekk toog sa liggéey ah? am na ay site affaire yi nii nga gis ne am na ay espace espace yooyu yàqu gi mais ñun ñu fi nekk si milieu bi ñun xam nañ ay am na ay espace yoo xamante ne ay bloc de dix mën nañ ko def toog jaay suñu jaay duñ déranger kenn kenn duñ déranger en plus site yi nga xamante ni surtout Petersen surtout Sandaga yëpp pareegul mais mënoo xëy ñoo xam ne ay borom kër la ay sénégalais rek di nga dëkk monde bi ni mu demee boo demee si dëkk jàmbur ñu lay dàq booy yaa ngi dee si gaal Kër Massar ñu fa yëkkati ah, koy gis amuñu fenn suñu réew lan ñun ndaw yi ñoo mën a defar réew mi yëpp mënu tukkee kuy defar réew mi mais Sénégal lan am yàgg la gis nga politique état boo dañ ko faussé depuis temps Senghor parce que moo indi tey waa àll bi di ñëw marchand ambulant chaque jour dañuy yokk nga marchand ambulant yi ngay wax ils sont plus de cinq cent mille personnes parce que sax dañuy yokk parce que àll bi doxatul mbay mi doxatul élèves yi étudiants yi ku échoué wala ku kiiwul da ngay ñëw si marchand ambulant mooy buntu bu amul couvert. Euh, pare nañ pour que jeunesse bi mën a dem bay ji est-ce que yéen pare ngeen bu ëllëgee euh, programme boobu ñu teg suñ ko tegee yéen ngeen mën a bàyyi activités yi fii dem to wéy topp leen ci li ñuy bëgg mais bien sûr parce que ñun am nañ suñu ay collègues yoo xam ne amoon nañ ay financement au niveau de DER dem nañ. ñu financé leen ñu ngi bay bay léegi macha allah mais marchand ambulant moom laay wax mbedd mi kenn ñaanu fi yàlla sax fi kenn ñaanu fi parce que ñun ñëpp ay nit lañ ay responsable yor ay soxna yor bi ay nit njaay ñoo xamante ni yéen journalistes yeeg ñoom nit mais rek ñu leen dàq jàng rek ñoo nekk si terrain bi comprendre nga li responsable ñoo xamante ni boo leen fekkee seen kër ay waaw boo fekkee seen kër ay noble nag ay responsable ñu xam li ñuy wax comprendre nga ñun bu am na suñu ay copains yoo xam ne suñu ay collègues yoo xamante ne financé la leen ñu dem. waaw léegi yéen. financé ba ni ña bay di def ay résultats yu mat sëkk. waaw pare ngeen pour rupture ak changement. bi gën a ca Kër Massar laal nañ ñi nga xamante ñoom ñoo di marchand ambulant yi ñu révolté wu Colobane la même chose fii nag moom euh, dafa xaw a dafa gën a dégénéré parce que gis nañ que ne fii démb da ngeen doon sanante ay xeer ba ay lacrymogène jóg si yéen en tant que ay jeunes te yéen chaque jour ngeen wax ne da ngeen bëgg développement Sénégal est-ce que yéen tàmm ngeen wala pare ngeen pour rupture bi nga xamante ne le président Bassirou Diomaye woote na ko jub jubal jubanti boobu noonu mais bien sûr ñun wax naa la ay sénégalais donc lu tax ngeen ay ay dañuy jël bagage yu jàmbur saccagé ko sa xam ne nit ku liggéey sa alal xamoon nu mu def ba am ko nga jël ko defee ko benn façon boo dikkee yor matto di toj taabal yi di def affaire naqar ak yooyu kooku xolam day jug loolu kese mais ñu nag agent de mairie yi am jàmm lañ leen seq ñun buñ dikkee suñu nag ñoom dañuy toog di waxtaan di sottantey xalaat parce que ñun ñoo waaw mais loolu mënta ñàkk da ngay gis kër goo xam ne sax dangay ngay jur say doom ñaari nit di xeex say ñaari doom di xeex loolu mënta ñàkk mais saytaane bu fi ñëwoon la rek mais ñun nag maire amuñu benn problème jàmm leen seq dañuy seqante ay jàmm maire Alioune Ndoye vraiment ñun tamit dañ koy félicité lu tax ñu koy félicité mooy def na ay sit pour marsan ambulants yi site yooyu dañuy ñaan yàlla mu egg ñu ñu ñu ñu recaser ñu fa ñu bàyyi territoire bi loolu mooy dëgg. ñaata at yaa ngi waaw wax naa la ko def naa fi dix ans. dix ans loo laa yor table. table waaw lan moo tax ci biir dix ans yi def boobu loolu xam nga la problème mooy bi nga fii yàgg nañ fee def ay site de recasement. wala ñu def fi ay centre commercial mais centre commercial heure bu ñu ko defee dañuy xool pas de porte ay 20 millions 30 millions 40 millions sa wax dëgg yàlla ñun amuñu bu ñu ko amoon dugg si mais amuñu ko waaw. amuñu non man nag marché boo ko liggéey war nga mën a am loo fay doo fay magasin bi waaw d' accord yow sa xalaat la nga wax mais nekkoo sur le terrain ba xam ne lu ñuy dugg sa xalaat la nga wax merci beaucoup loolu laa maam Afia bu Sonko. maam Afia bu Sonko. waaw fi nga dëkk wala nga paas ñëw. fi laa juddoo fi laa yoroo. bi laa dëkk doomu gox bi laa waaw. doomu plateau mais mais mais jot am ci diggante marchand ambulant yi ak waa mairie bi. Aliou Ndoye la waa boor bee la ñooy jéem a sànnal gouvernement bi loolu la demee. noonu nga gisee. ah loolu moo am sax. mais mais mais nan nga gisee marchand ambulant yi parce que ñoom dañoo wax ne marchand ambulant yi dañoo occupé tali bi kenn amul fooy jaar oto amul fu muy jaar. loolu lu du dëgg yoon yéen gis ngeen fii oto aw fii gars yi loolu taa yoon am na ku ñëw oto day jaar fii mais xam nga. instant yi ñun dañuy dañuy politique nii dañuy politique moo tax ñu def lii lépp mais am laa yàqulun daal dëkk mooy loolu daal. ah yow lii politique nga ko gisee. la sax ndax waa APR yi la ñoom la bokkuñu. ñu jéem a saltel gouvernement bi. mais mais ñi fi dëkk tamit dañoo wax ne. marchand ambulant yi dañoo fatt seen kër dañuy am ay malaat di am ay néew duñu am sax espace buñ mun a jaar pour génn yow fii yow léegi xam ngeen lu xaw fii nii mais ñoom loolu la ñu wax mais ñoom loolu ñu fi dëkk ñoom nooy ni wax loolu neer mais waa nii mais fi dëkk ñu fi leen fi dara tamit mais gars yi mooy loolu message booy lancé mooy paysan yi paysan dañ koy woo mu ñëw jàppale ñu kon ñu si ay Sénégalais lañ mën ñu xëy sàcc ay góor lañ tamit nañ ñu jàppale ndax bu gars yi lu ñu am fii seen seen famille ko yóbbul mooy loolu daal.